pom suñ Basiiru Mbàkke moom yaakaar naa ne ñun moom dafa jitu jiitu suñu juddu ñun ñëpp fi lañ ñëw fekk ko fi mu nekk pont boo xam ne pont bu pont bu yàgg la boo xam ne yow samay bi may lang lang ci samay nijaay ak samay papa ci pont bi laa daan jaar dem Casamance dem Kolda daan dem Banjul kon pont bi war na mu nekk pont boo xamante ni tey Sénégal yëpp fi dem Banjul wala nga dem Ziguinchor fi ngay jaar pont war nañ cee mën a taxaw ndax problème bi kaaraange gi jeex nga bo suñ bi nga juddoo ba léegi fekk ko fi ci nii lañ ko fekkee amul benn assurance boo fii jaar boo yore oto di fi jaar sax sa xel du dal rawatina barrière yi xam ne moo tiim ndox mi barrière yëpp daj nañ ñëpp teg nañ ci kon pont bi war na cee mën a taxaw mel ni Sonko nekk ci bopp gouvernement bi ñu koy ñaan pour mu xam ne fii moom fi jaar ay mbokkam ndax bo xolé bi nek na route bo xamanteni ni yaakaar route bo xamne ñepp ko ñepp ko soxla parce que pont bi wax dëgg yàlla maa day taali li fi nek kenn mënu ko wax bo tawli ci tefes bi da ngay xamne li garantie bi jeexna da ngay gis fer ni dagge ci souf fi am asna dafa bari parce que parfois boy guddi gi ba fi jaar amul ben éclairage lumière dafa jeex heureusement li ñu arrêté auto di daw minuit sax mais fi da lan tok sax semaine da ngay gis ci sok bu fi am parce que benn bi xadna auto di fi jaar camion di fi jaar jakarta di xok jaar côté ba gauche à droite li fi nek kenn mënu ko wax fekk tegoo ci sa bët mënoo ko xam ñu ngi ñaan autorité yi ñu jàppale ñu ci pont bi nuñ a def ko ci palañu parce que lu toll ni pont suñ Bassirou Mbacké kenn waru fee jaar mel nii général buy dem màggal Porokhane fii lay jaar fii la ñuy te li jaar ci oto kenn xamul kon pont bi dañ cee taxaw pont bi nekk pont boo xamante ni buñ toll te ni mu tey bu daggoon tey dem pont bi mi boobu noonu boo xool digg pont bi ay